asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ñëwaat ak yéen ci benn waxtaan bu gàtt rekk jëm ci diine ji ñu bokk ak valeur yi ñu bokk ci biir réew mi ñu bokk tey nag ñu bëgg a waxtaan ak yéen ci jigéen ak ban taxawaay la ci ñépp war a am nga xam ni jigéen moomu wax nañu ni mooy jur ku baax waaye yaakaar naa ne bala nga ne naam nekk fa loolo fi wax am na noo xam ne nii bu fekkoon ne suñu maam yi ak suñu baay yi ak suñu maamaat yi sax dañu ko yore woon jigéen ñi duñu ko tal ba di fa nekk ba di fa jur li ñu fa jur jigéen pour mu mën a nekk ci bërëb nekkin wu dal xelam jaamu boroom këram liggéeyal ko rafetal aw nekkin ba jur fa ay doom dafa am lu mu laaj dafa am lu mu laaj loo xam ne lii nag du alal déedéet comme ni mu mel ci Sénégal léegi jigéen boo xamee ne suñu borom dogal na mu tàbbi ci sa loxo dangay def ñi mag ñi daan def mooy yërëm ko suturaal ko sagal ko yiir ko yar ko di ko jubbanti loolu moom lañuy xaar ci góor mu def ko ci jigéen jigéen nag particulièrement bi nga xam ni rawatina bi ne ci sa loxo waaye jigéen ju la romb di dem bët boobu nga ko war a xoole muy sa soxna wala mu ñàkk di soxna muy sa rakk walla sa mag walla muy ñàkk di sa mag wala sa rakk lu mën a xew daal jigéen la yàlla bind na ko ci néew doole bind ko ci melokaan woo xam ne day laaj yërmande laaj sutura laaj ñeewante laajug taxaw boo ko xoolee jigéen nga ne danga def ko objet de plaisir maanaam boo ci mënta am bànneex rek daal soxlawuloo ko bu fekkee ne da nga koo jàppee comme élément de second plan mooy koo xam ne kii daal moom euh, ca ginnaaw rek nga xam ni yow jigéen daal daanaka daraja ji nga ko jox weesuwul darajay bàyyi ma ci sa biir ëtt foofa de ku ko def ku ne juum nga ndax ki nga xam ni moo ñu bind moom suñu borom tabaraka wa taala bari na moos ci biir alquran rawatina ci suratu nisaay foo xam ni fii revendiquer na fa jigéen ñi seen xàq ba mu mat sëkk wax ban taxawaay la góor ñi war a am ci jigéen ñi ban pas-pas la ñu war a am ci jigéen ñi pour société bi mën a nekk société bu harmonie bu équilibré boo xam ne bii jàmm dafay sax ki yàlla yónni woon ci ñu it lim ci wax kenn xamul nu mu toll mën ngaa jël benn téere rek boo xam ne bi daanaka lépp lépp lépp lépp lu jëm ci wàllu jigéen la am na benn téere boo xam ne bii bu yàgg bu ñu daan wax Badru Zawjayn booba téere la fa yàlla revendiquer jigéen euh, kenn xamul nu mu toll rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci ñaari xadis yu siiw a siiw a siiw a siiw yoo xam ne buxaari ak muslim ñoo ko solo mu naan taqullaha fi nisaa yi na ngeen ragal yàlla na ngeen teet suñu borom ci jigéen ñi na ngeen seet seen jëf yi ngeen war a jëflanteeg ñoom ragal yàlla ci comportement bi ngeen di am ak ñoom ragal yàlla ci kàddu yi ngi leen di jëmee mu waxaat feneen ne innama shaqaa'iqu rijaal ma akramahunna illa karim wa ma ahanahunna illa laim nee na ñoom jigéen ñi jigéen ñi jigéenu góor ñi lañu maanaam ci nit ak càmmiñam boobu rapport ñi am ak moom mu ne kii am tedd nga rek moo leen di teral nit ku tedd rek mooy teral jigéen nee na nit ku tedd di nit ku ñàkk solo nit ku doye di ci wàllu jikko mooy toroxal jigéen mais bu ñu jëlee nag alxuraan ji teg fale jël xadis ya teg fële ñu indi nité sur le plan humain humain ana yërmande ana mbaax ana yiw wi nga xam ni wi moom moo war a doon dattu doomu aadama boo xamee ne jël nga jëmmi jigéen ji rek teg fale nga jël jëmmi doomu aadama nit ki nga xam ni kii yow waxuma la ki nga bokkal niroog moom waaye xanaa mellentaan bii nga xam ne day dox ci suuf sax soxla na sa yërmande loolu paaleen yi ak ñangeen yi rek ñoo koy def mu màtt la nga dere bi ci kaw karo yi parce que loolu xeetu manqué la damay tooñ nag sama mbokkum paaleen yi ak ñangeen yi rek nag nga xam ni moom mi nga xam ni xamul muy mellentaan bi def la li mu xam nga wëlbatiku dere bi ko yow sax sëg nite jeex na waxuma laak nag nga koy def am xar waxatuma laa nga koy def fas waxatuma laa ngay def beneen bindeef bu mel noonu ñooñu ñépp nga jéggileen nag ñëw ci doomu aadama xam nga monstre loolu ñu wax monstre monstre boo yaakaaree ni mooy xar mu am ñaari bopp walla bay bu am juróom benn béjjën wala mbindeef moo xam bu ngee gémmiñ ga di génnee safara xamuloo lan mooy monstre mostre dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy koo xam ne kii dafay yor jëmmi doomu aadama tànk loxo nopp bakkan baat bët gémmiñ di sol yërey nit di wax waxi nit ci zahir waaye nga gis xolam ba ñuul kukk kukk mu capable a mu capable jëf jëf yoo xam ne ku ko tiim danga naan lii lu mu doon loolu mooy monstre man gis naa ci benn kaabu bu bu daw yaram wane nañ ko bërki démb ci internet bi yépp mu ngi circuler benn jigéen joo xam ne ji nee ñu kër jàmbur la nekk loolu xawma ca dara nee ñu waa ji topp na ko pour mu génn këram bu ñu xoolee idda boroom këru ndaw si fi mu faatoo ak léegi yaakaar naa ne euh, mën naam ba tey sax su iddaam jeexeet yaakaar naa ne Euh, la ca topp bariwul kon kooku kenn mayu ko délai kenn mayu ko délai kenn muñalu ko kenn yërëmu ko kenn suturaalu ko ndax boroom këram bi mu faatoog léegi daal yaakaar naa ne du passé ñeenti weer wala ca lay yem mu xam ni mooy adday jigéen mais bu fekkee ne génn addaam jeex na nga ne jàpp nga ne dafa dëkke sa kër te yow nga bëgg koo dimbali mayaat ko tuuti mayaat ko su dee dëgg la ne li nga yor loola mu tëdd yaa ko moom mayaat ko ñaar ba ñetti weer ba ñeenti weer yabalal ci moom ay mbokk ak i mbokkam ak say bokk waxal la wax a wax ba mu wóor la ne kii génn gi bëggu ko loolu mooy procédure bi xaw ma luy problème ba loolu moo doon procédure bu rafet bi bu jekk bi jaadoo ci wàllum nite su bañee nag su boobaa nga soog a dikk waaye fekk nit mu tëdd ci biir néegam guddi nga xam ni yow soo ko ko defoon bëccëg mu mu sàkk pexe ci ci ci ci balay balay jant so ngay xaddi xedd ngay xeddi xadd ba mu ba mu dëkk ci koo xam ni kii sa mag moo ko denc ba faatu kon ñaawul woon digganteem sa mag sa denc ko ba faatu kon jooju jigéen mënta doon jigéen ju bon su doon jigéen ju bon la ba sa mag faatoo sa rakk du ko denc jikko la ko jëlee ndax boobu fekk na mu am ak moom ay doom mënoon naa dem wuti gune gu ndaw kon la tax mu jël ko mooy bëggoon naa rafetal digganteem ak njaboot ga uuf leen bëggoon na itam ndaw soosu nekk ci kiirlaay kon sa rakk def na jëfin ju rafet rafet rafet rafet jëfin ju kawe euh, ñu bare ci senegal moom lañu xamal moom jëf jooju nga dikk yow bàyyi ba guddi nga xeddi foofa nga xam ni fa la dëkk loolu ku ne rafet na ku ne am na yërmande ku ne yiw na ku ne jekk na amuloo xol ñu ne déetewaay nga koy vilipande xam nga waxoon naa leen fi ne wax feeñ am na kàddu ak jëf yoo xam ni dafay wane vrai visage yu dafay wane vrai visage yu nit euh, kàddu yi mooy euh, déegi doy na déegi doy na dee du doy yàlla rek mooy doye mooy doyal ak dee yàlla moo koy décider kon vrai visage bi feeñ mooy visage ku gëmul yàlla ndax yàlla suñu borom de wax na rasulullah sallallahu alayhi wasallam qul waxal lan yusibana illa ma kataballahu lana destin kenn du ko fanq kenn ku ne kenn ku ne sa destin mënoo cee mucc mu waxaat feneen ni wa ma kaana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaaban mu ajjala bakkan du faatu lu dul ci ndigalu suñu borom xanaa ñaari aaya yooyu jànguloo ko kon nga jàpp ne kon ñoom ñoo dee ñoo ñoo ko rey nga ne jamais 203 waxi tubaab nga gëm bàyyi waxi yàlla jamais 203 loolu wax tubaab wax moom nga bàyyi ne kon moom moo gën a wér ci qul lan yusibanaa illa ma kataba allahu lana huwa mawlaana wa ala allahi falyatawakkal muminuun moo gën a wérit wa maa kaana li nafsin an tamuuta illa bi iznillahi kitaaban mu ajjala ci jigéen joo xam ne ji yaa ko wax nee na moom nee na ci sa ndigal lay wéy kon kay mi ngi woon ci disposition yu sell sa digganteeg moom waaye nit boo boddee koo bokkal ndey ak baay keneen koo ne dinga ko may jàmm ci àddina su ko gëmee dof la bu ko gëmee dof la bokk yi mënuma àggale nag waxtaanu tey bi te waxaatuma feddaliwaatuma sama kàddu ci télévision yi nga xam ni bës bu ne ñu yenul ñu ay nit ñoo xam ni ñi tekkiw dara di ñu leen won xam nga ñàkk ñoo defal ay yu ñu njëriñ émission yoo xam ne jëriñ suñu njaboot yi éducatif am aspect islamique am ngor am yiw defalatu leen ñu ko defalatu leen ñu ko xool leen même chrétien yi seen émission yi nga xam ne moom lañ le dimanche wala jamonoy Pâques lañ cay def waaraate yeete soññe ñaaxe lu rafet rek lañ cay def ñun ñu ñuy won yoo xam ni kenn xamul lu mu doon ñu ne déetewaay wanatooñu lu baax ba pare di dagg suñu xol yi dagg suñu xol yi weesuwul tegal ñu ay nit ñu ñuy saaga tegal ñu ay nit ñu ñuy xas di ñu ŋàññ tegal ñu ay nit ñu ñuy wan ne suñu valeurs yi dañ ko war a piétiner war nañu wax ci tele yi nag war nañ cee wax nag xaw ma ban pexe lañ ci jéem ak ku ci mën waaye lii lu jara pencoo la nag moom ndax nag mbir mi mi ngi bëgg a ëpp nag asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu